su ñoom gars yi nga xam na seen intérêt moo leen ñor looloo tax saa su nekk rek ñuy continuer di dénoncer pour suñu doom yi ak suñu rakk yi xàmmee leen xam na ñii baaxuñ ci société Sénégal bi xam na ñii baaxuñ ci Sénégal looloo tax ñuy dénoncer saa su nekk gars yi ku dugg nga partager ko ku dugg nga partager ko bu baax maa ngi sant waa Pastef yi nag xam nga di leen ñaanal yàlla parce que seen liggéey rafet na bu baax gars yi ñu ngi wàcc si terrain bi saa su nekk di wax ak sénégalais yi xam nga parce que Macky Sall daf fi war a jugee ko waaw loolu combat la boo xam ne xam nga ñëpp ci war a taxaw ñëpp ci war a ànd nekk benn waaw xol yi booloo pour ñu jëm fi jëlee Macky Sall pour ñu tabaxaat beneen Sénégal waaw Ndoye nag li may ñëw pour waxtaan ci moom ah Ndoye dafa nekk nit koo xam ne du royukaay fii biir Sénégal Ndoye du référence mënoon na yem rek ca lam def parce que mu ngi dal Ousmane Sonko xam nga te xamuloo ko dara xam nga lan moo gën a métti ci Sénégal mooy nit koo xam ne xamuloo ko dara. ngay wax ci moom lu ñaaw loolu loolu mooy li gën a bon te loolu dafa nekk ay jikko yoo xam ne ay jikko yu sénégalais lañ waaw soxor ak iñaan ak di waxal nit ki loo xam ne xamoo ko Ndoye xamul Ousmane songo xamu ko ci Adama ak Awa iñaan la rek ak soxor ak Macky Sall fay la xaalis nga bëgg a taxaw pour yàq deru nit ki parce que tey jii nii suñu waxantee dëgg te yàlla tax ah euh, Ndoye moo gën a taq Ndoye moo gën a salte Ousmane Sonko parce que Ndoye nekk na nit koo xam ne jamono jii nii ñi nekk fii biir Sénégal amul kenn koo xam ne rafetlu na lii Ndoye di def parce que Ndoye émission bi muy def rek ah Sénégal yëpp ko condamné ñëpp ko ñaawlu parce que xaw yi ay sutura jàmbur xam nga wàññi ay sutura jàmbur Ndoye moo fi taxaw Sénégal yëpp di wax mun a sikarkat yi nga xam ne dañuy tudd yàlla ci quartier yi ak ci koñ yi dañuy déranger nit ñi. ba pare na tànn beer yi war nañ leen a bàyyi ñuy continuer di dox seeni tànn beer kon Ndoye Bane bëggul yàlla Ndoye nitu seytaane la waaw loolu foog Sénégalais yi bàyyi ko xel bu baax parce que dañ koy wax rek parce que Ndoye Bane saako bu nëb la ci biir soble foog ñu dénoncer ko pour Sénégal yëpp xam ne kii ku bon la waaw mooy li ma ne wax chaque jour rek président Ousmane Sonko moom xam nga bëri ko ci mbartal la parce que Sénégalais yi ñoo ko tànnal seen bopp yàq yàq yàq da ngay sonal sa bopp rek mais munoo ci dara munoo ci dara. waaw mootloo mootloo Modou nga mootloo xam nga sénégalais yi dañ lay bàyyi xel dañ lay supporter war nga mën a bàyyi sa xel sa askan parce que gis nga Macky Sall xaalisam la yor rek moom xoolul loo doon xoolul sa ngor xoolul sa jom xoolul sa dara xaalisam la yore mu fekk nga taxaw te amoo ngëm gu dëgër dana la jënd yo pour nga jaay ko sa mbooloo moo tax may wax ak Modou di wax ak Balla Gaye di wax ak sànneex di wax ak ñoom ñëpp gis nga mbooloo yi leen topp di leen tàccu Modou Lo mbooloo yi nga xam ne ñoo la topp di la tàccu soo daanee ñu ñëw sa buntu kër fees dell parcelle di la yuuxoo di la tàccu bokk ak sa yow ak sa mbégte mais gënoo leen de te ëppoo leen dignité te ëppoo leen maqaama ëppoo leen xam-xam fa yàlla mais dafa fekk dañoo am cofeel ci yow am mbëggeel ci yow tey jii nii mbooloo moomu noonu am na ci ñoo xam ne suñu añee duñu reer mbooloo moom di la bëggee guddeeg bëccëg am na ci ñoo xam ne tey jii nii xam nga ñu ngi feebar tëdd ci lalu hôpital yi amuñ lu leen faj te kenn tegul leen ko lu dul état bu bon tey jii ni mbooloo moom noonu di la topp yow moon loo ah mbooloom parcelle moom tey jii fii ñuy wax ak yow rek parcelle amul ndox kun tey lan moo tax yow Modou nga wan ginnaaw sa askan dem di ànd ak Macky Sall di gëmloo sa askan na dañoo war a woteel Macky sàll te sa askan ñu ngi dund coono ñu ngi dund souffrance ñu ngi bëgg a dee ak xiif ak mar ak rafle ak jaaxle dama bëgg ñu bàyyi seen xel bu baax parce que tey jii nii xam nga Sénégal la nit danga koy def star ba pare yow mbooloo mi ko def star mu jël la di la jébbal ab président di la jaay pour encaisser sa xaalis pour tëdd ci loolu dañ ko war a moytu parce que du dëgg du yoon. Modou Lo xeexalal sa askan parce que sa askan a ngi nii sonn sa askan a ngi dund coono bu tar ñoom nga war a défendre parce que ñoom ñoo lay weranteel ba ñi leen ci jam ñoom ñoo lay xeexal ba di rey seen bopp ci yow ñoom ñooy dagg tike stade yi ñoom ñooy daj lu nekk ngir yow Modou Lo kun tey jii nii suñ demee ba toll ci élection sa intérêt askan nga war a gën a xool ni sa intérêt bopp yow ak Balla Gaye nag laa boole wax ji waaw yow ak Balla Gaye laa boole wax ji parce que du dëgg du yoon Macky Sall ñëw di leen jënd ngeen yéeg ci kaw pëjam di gëmloo Sénégalais yi ne dañoo war a woteel Macky Sall man du ma ànd ci loolu parce que man dama gore parce que man sama askan moo ma gënal lépp lu ma mënti am ci àdduna parce que li ñuy dund fii biir Sénégal képp koo xam ne ne nga teg tegoo ci bët naa féq nga ni Sénégalais yi di coono bi Sénégalais yi di daj képp ku nekkul naa féq xam nga ne Sénégalais yi dañuy dund coono bu tar kun dafa jot tey xam nga ñu ñu waxante dëgg ñu bàyyi naxante bi bàyyi naxaate bi tey suñ njiir yi dañuy nax di dundee suñu alal di sàcc suñu alal di ci kumpuloo ak ñan mooy ñi nga xam ne alalu àdduna moo leen ñor koom-koomu àdduna gars yi partagé leen vidéo yi bu baax koom-koomu àdduna moo leen ñor nañ leen waxante dëgg Macky Sall mënta am deuxième mandat fii ci biir Sénégal parce que jël ay kaar jënd ay nit duy leen ci bu ba mu fees yóbbu leen ñu koy tàcco ko fecc ko tëgg loolu du mbooloo muy watee nañ leen waxante dëgg te yàlla tax ñun Macky Sall mënuñoo nax Macky Sall mënuñoo nax parce que si dëkk bi lañ dëkk xam nañ stratégie yu muy def bu baax mbooloo Macky Sall bu ngeen gis xamal ne ñëpp koo ci laaj dañ laa fay deux mille trois mille cinq mille Macky Sall amul mbooloo Macky Sall su fekkee kilo la woon ci réew mi tey liber la kun bu leen ko nangu bu leen ko nangu su fekkee dafa bëgg sàcc élection yi bëgg a sàkketoo jël mbër yi di leen teg ci kaw turbine yi pour nit ñi ñëw di seetaan ñi naan am na mbooloo pour ëllëg su élection yi ñëwee mu sàcc ko Macky Sall loolu du la ci génnee parce que Sénégal yi jug nañ taxaw jël décision boo xam ne billaahi lépp lu la réew mi jaral pour nga sàcc élection yi Macky Sall ñun jaral na jaral nañu lu ko raw pour doo sàcc élection yi ci bépp côté nag waaw parce que ñun dañoo sonn ci lii nii nii nii nii waaw dañ leen waxante dëgg te yàlla tax. am na ay imaam yuy jàppale Macky Sall maa ngi seeraan sax benn imaamu Dalifort mu naan Macky Sall day soos soosaat ngir lan ngir alalu àdduna ngir koom-koom bi nga xam ne moom la Macky Sall di yëkkati di la jox tax ngay jaay sa askan gars yi ku dugg nga partager vidéo yi bu baax ku dugg nga partager ko ñu waxtaan parce que chaque dimanche dañuy ñëw pour yulli li nekk suñu biir dënn parce que lu ñuy naqadi la biir senegal ñu koy dund ci bépp xeetu naxaate ci bépp xeetu jaay doole ak notaange. foog ñu naqarlu ko di wax ci kaw ba ñëpp di ko dégg waaw parce que soo nekkee imaam war nga am ak ragal yàlla goo xam ne ba tey jii nii ah suñ ñëwee indi xaalis jox la ah war nga xool sa diggante ak yàlla nga wax dëgg Macky Sall parce que day not askan wi lan moo tax imaamu Mali bi ah ñu jox ko cinquante millions mu delloowaat ko état bi lan moo tax imaamu Sénégal yi suñ leen joxee xaalis duñ ko delloo état bi te sénégalais boo dajal mu ngi rëy làmmiñ naan sénégal réewu diine la sénégal dëkku diine la sénégal moo nekk dëkk boo xam ne xam nga mag ñu baax ñi dëgg la sénégal mag ñu baax ñi ñaan nañ fi mag ñu baax ñi fii lañ tëdd mais tey jii nii man damay rusoo tax taxaw di wax naan sénégal sénégalu sëriñ diw la sénégalu sëriñ diw la man dama koy rusoo wax parce que jukku yu ñaaw yi may gis si askan wi ak xeetu yàqu-yàqu yu may gis si biir dëkk bi ak xeetu ñaaw téef bi fi am mais mag ñu baax ñi liggéeyuñ loolu mag ñu baax ñi ñoo liggéeyut loolu noonu kun suñuy tiitaroo mag ñu baax ñu nañ fekk ñin ñu baax ba pare parce que nit ki su fekkee da ngay foo taxaw naan maa fi gën maa fi gën dañ la war a xool ndax yow nit ku gën nga yow mi yaa gën ci nit ñi ba pare bala ngaa naan yaa fi gën dëkk yaa fi gën sëriñ yaa fi gën imaam yaa fi gën lépp kun sama waaje nañ leen jéem a baax nañ leen jéem a jub nañ leen jéem a tegu ci dëgg parce que dëgg mooy njëkk moo mujj te dëgg la yàlla sàkk dëgg la yàlla tabaxee àdduna ak asamaan ak suuf ñun nit ñi ñoo taqal suuf si ñun ñoo saltel suuf si ñoo tilimal suuf si kun war nañoo dellu ginnaaw xool li nga xam ne moom mooy dëgg ñu teg ko ci réew mi waaw réew duñ ko sosee ci ay caaxaan réew duñ ko sosee ci ay mbumbaay réew duñ ko sosee ci intérêt ku ci nekk sa intérêt bopp nañ leen yërëmante comme ni ñuy yàlla yërëmee loolu mooy dëgg mais ku ci nekk di xool sa intérêt bopp imaam yi nekk ci biir jumaa yi xaaj bi yëpp seen intérêt moo leen bàyyi ci biir jumaa yi sëriñ si léegi génn wàll gi yëpp tamit seen intérêt moo leen bàyyi ci kër sëriñ yi di dundee alalu askan wi président bi di yàq ñu koy dooleel ci loolu noonu muy def mais yërëm leen askan yi yërëm leen néew di doole yi yërëm leen ñi nga xam ne ni tey jii nii xam nga depuis longtemps seen loxo mënut a jot seen ginnaaw ñuy dund ci coono bu metti kilifa diine yi fi woote tarixa de man de man man man man sama jëmmi bopp laay wax man damaa noppalu jamono jii ma nekk man topp ma kenn di darti darti man xasida góor yàlla yi laay liir xam nga jàng ci alxuraanu yàlla bi essayant di julli jàpp respecté samay waajur bëgg sama bopp gëm sama réew man loolu laay dund waaw parce que man nit duma ma jaamloo nit du ma corxo corxo parce que damaa xam sama wareef ci kaw suuf damaa xam sama wareef ci kaw suuf kon ñun sénégalais nañ leen jéem a yeewu bu baax parce que Macky Sall mënu fee nekk ah di jël alalu Sénégal mu leer na la alal ji <clears throat> alalu riba la mu jël ko jox la ko yow imaam nga jël alal ji di ko bakkoo te yow xam nga lu yàlla wax ci riba yow imaam bi téye alal ji li yàlla wax ci riba xam nga ko bu baax a baax a baax nga jël alal ji di ko tiitaroo naan Macky Sall day soos soosaat bés bu la yàlla téye. dana la soos soosaat la billaay wallaay tallaay imaam dafa war a ragal yàlla sëriñ dafa war a ragal yàlla gis nga diine lislaam du diine làmmiñ sawaay waay diine jëf la lislaam diine jëf la képp ku ci nekk ak foo ci mënti nekk ci biir diine ji war nga ko mën a jël di ci jëf di ko jëfee mais du làmmiñ rek waaw tey jii ne xool leen tele yi ak rajo yi doo ci gis benn tele boo xam ne nee nañ la tele bii nii bañ defee sondage moom moo jël paie mu nekk téléw diine amul amul benn télé diine boo xam ne Sénégal sénégalais ñi ngi lay seetaan amul Sénégal caaxaan fo lañ ñuy imposé dugal ko ci seen biir xol yi dugal ko ci seen biir xolu njaboot gi ba léegi jamono ji kenn xamatul ki gëm ak ki gëmut ñu légaliser lépp caga di gën a yokk góor jigéen di gën a yokk lépp di gën a yokk ñëpp dëgg ci seen tànk na tekk amul kenn ku ciy wax ñu ne njub warta am ci réew mi te mag ñu baax ñi xeex fi njub pour njub samp ci biir réew réew mi ku ci nekk di ñoddi sa intérêt bopp nañ leen yërëmante nañ leen yërëmante te yàlla tax liy dëgg xam nañ ko nañ leen ci dox nañ leen ci dox waaw nit bu ragal ñàkk ba tax nga wan ginnaaw dëgg nit bu ragal xiif ba tax nga wan ginnaaw dëgg picc baa ngi nii di naaw ci kaw jaww ji picc amul compte banque ci amul compte banque te saa su nekk su xëyee yàlla dana ko wërsëgalee li muy dundee ba dundal ci ab njabootam kun suñ ko gëmee rek suñ gëmee yàlla rek te wóolu ko rek te tegu ci li ñuy yàlla wax billaahi yàlla dana danañu may lépp luñ bëgg waaw mais suñ koy naa fekk ji moo ñu sonal xoola tey usmaan Sonko rek rek rek laa dégg ci moom mu ne su faloo dana utal daara ji diine ji dana leen utal ministre ban ban opposition moo fi wax loolu amul campagne yi ba mu dalay commencé ba léegi ma benn opposition bu taxaw ne bés bu falee dana utal diine ji ministre dimbale nitu diine yi pour ñu am gëdd ci réew mi parce que jaamukati yàlla yi dañoo am problème fi biir senegal képp kuy nitu diine da ngaa am problème tu fii biir Sénégal parce que da ngay sellal di jubal di jaamu yàlla nit. simmeeku def taati neen ñëw taxaw sa kanam wan na la na réew mi xam nga non dafa ñaaw dafa ñaaw nañ leen xàjjale dëgg ak fen nañ leen xàjjale li li yàlla bëgg ak li yàlla bëggul loolu mooy dëgg waaw njub lañ bëgg njub parce que njub jamono ji man soo gisee ma gëm président Ousmane Sonko topp ko ah pour yéene ko mu nekk président Sénégal parce que damaa gis si moom ak njub te njub dafa raar jamono jii nii Sénégal luñ gën a crise mooy njub nit ku jub ak nit ku gore moom lañ gën a crise parce que lii la koy wan chaque jour mu nekk jàngat chaque jour nga dégg fi imaam bu def tooxi duuna chaque jour ñi nga xam ne ñoom lañ jàppoon ñoo gën a jub mooy imaam yi chaque jour nga gis imaam yi def fi ay toj-toj parce que tey jii suñ demee ba Sénégal ay nit taxaw di am fit di attaqué ay imaam di leen saaga di leen wax dëgg di attaqué ay sëriñ di leen saaga kun sama waa ji fañ tegu fa diine tegoon tànkam fii biir Sénégal tegatu fa tànkam nañ leen xoolaat suñu bopp bu baax gars yi ku dugg nga partage vidéo yi bu baax parce que dëgg neexul li am Sénégal ñëpp dañ ci teg seen bët billaahi walaay tallaay nitu caaxaankat fii ci Sénégal moom lañuy ñuy jël yëkkati ko ci kaw nitu dëgg ñu wàccee ko ci suuf di ko dëggate fii loolu mooy daw biir Sénégal te loolu dafa war a jeex dafa jot tey ñi nga xam ne dañuy jubal ñi nga xam ne nit ñu jub lañ ñu teg leen ci kanam nitu caaxaankat yi sàcc yi tyran yi ñu teg leen ci ginnaaw ñu féetee ginnaaw parce que àdduna noonu la war a doxee su fekkee bëgg nañ suñu réew dem ci kanam nañ leen jël nit ñu jub ñi ñu teg leen ca kanam nitu caaxaankat yi ñu teg leen ci ginnaaw loolu mooy jëmale réew kanam parce que yàlla moo ne boroom xam-xam yi ñooy njiitu àdduna yi nañ leen jël boroom xam-xam yi ñu jiital leen. borom xam-xam kenn du ko desal ginnaaw ku desal ginnaaw borom xam-xam des ginnaaw amul benn réew buy jël say borom xam-xam desal leen ginnaaw ba pare di jëm ci kanam amul ci àdduna bi say borom xam-xam ngay jël teg leen ci kanam sa réew mën a jëm ci kanam waaw su mën a borom xam nag xam nga ñu bëri dañuy jàpp ne damay wax sëriñ wala ustaas kese déedéet ñoom ci ay borom xam-xam lañ bokk mais defar dàll bi borom xam-xam la uude bi borom xam-xam la. ah menuisier métallique bi borom xam-xam la tailleur bi borom xam-xam la képp koo xam ne jàng nga sa métier ba mu nekk xam-xam ci yow war nañ la mën a jël teg la ci kanam ngay jëriñ sa réew parce que loolu mooy jëmale réew mi kanam mais tey jii ci mbedd ndakaaru yi génnal ci mbeddu Sénégal yi partout da ngay gis ku jàng sa métier ba mokkal ko di defar ay dàll di ko wër di ko ambulant di fekk ji nit ñi naan leen sarax leen ngir yàlla ngeen jënd ko ku ñëw yére ba mu rafet di génn di ko ambulant borom métier yëpp. dañoo torox moo tax jamono ji jeunesse bi kenn jàngatul métier parce que da ngay xalaat ne doo ci am avenir loolu yëpp dañ ko perte te Sénégalais képp ku ko mos a xam xam ne Sénégalais day am métier fépp fu mu mënti dem ci àdduna dañ leen waxante dëgg dañuy waxtaan rek Sénégal dañuy waxtaan rek te lii ñuy waxtaan nii xam nga du dara du dara lu dul xam nga yërëmante yërëmante parce que yàlla moo ñu ëpp yërmande téeméeri ne yoon ñun sénégalais yi wallaahi yàlla moo ñu ëpp yërmande yàlla moo ñu ëpp yërmande mais sénégalais dafa jàpp ne mu ëpp yërmande yàlla tey jii xoolal li ñuy attee suñu tribunal yi suñu tribunal yi ah daganal nañ góor jigéen daganal nañ caga sa doom su amee dix-huit ans su fekkee dafa bëgg jaay boppam yow papa ji nga aaye ko su la porto su la yóbboo ci yoon dañ lay téye parce que da ko war a bàyyi mu dem jaayi boppam loolu ñoom ñoo ko ñen ñoo voté loi boobu est-ce que sëriñ si xam nañ loolu est-ce que ñoom xam nañ ne état bi mu ngi doxal loolu ñan ñooy maye carte caga ñan ñooy dooleel góor jigéen yi sa waay est-ce que loolu yow gëmoo ne war na mën a jeex biir Sénégal ah nit ñi dund jub yaraat seen njaboot yi ci dëgg yar seen njaboot yi si njub Sénégal jamono ji soo amee doom bu góor dangay tiit soo amee doom bu jigéen da ngay tiit parce que ñaar ñoo ñëpp gars yi taxaw nañ. sa doom bu góor bi mën nañ koo def góor jigéen sa doom bu jigéen bi mën nañ koo def caga fii Sénégal moo tax parent yëpp jamono jii dañuy yox yoxi parce que dañoo tiit parce que seen aveniru njaboot xamuñ fan la jëm njub googu lañuy ñuy sàkku pour mu dellusiwaat biir Sénégal parce que moom la fi mag ñi baax ñi xeexoon ba taxawal ko mooy njub googu waaw bëggoon rek njub. moo taxoon mag ñu baax ñi daan xeex fi biir senegal te man njub googu gisuma ko ci benn kandidaa ah bu dul Ousmane Sonko man président Ousmane Sonko seul laa gis njub googu nekk ci moom waaw parce que moom rek laa gis si si politiciens yi mu tàllal ñaari loxoom na képp ku gis si man lenn loo xam ne takk na wala sàcc naa ko porte ma plainte ñi dem ci yoon ñi atte ma tëj ma sama géeru dund moom rek laa gis mu def ko. te bu ma juddoo senegal ba ni ma màggee Moustapha Niass jaar na fi musuma gis mu yëkkati ñaari loxoom na ku gis si man li ma sàcc na ko def Tanor Dieng dafa gu ko fi dans soxo dafa gu ko fi te Macky Sall tamit dafa ko fi ñoom ñëpp amul kenn ku ko fi def Ousmane Sonko rek laa gis kon ma gëm ne kii ku jub la ma gëm ne kii ku jub la te ay discours am njub rek laa ciy gis ay discours am njub rek laa ciy gis wallahi nit ku baax la kon sénégalais yi. ngir yàlla war a suuli nañ leen bëgg Sénégal ba pare bëgg si ñu bopp ñu jéem a sàkku njub parce que njub nit ku jub dafa raar nit ku jub dafa jafe wallaahi dafa jafe jamono ji ñu toll. nañ leen waxante dëgg te yàlla tax élection yi nag yegsi na wate bi dimanche bii di ñëw incha allah si lañ war a tànn njiitum réew ki nga xam ne moo war a tabaxaat suñu réew pour mu nekk réew moo xam ne ñëpp danañ ci yëg seen bopp. man ma may lancer benn message gars yi partager leen vidéo yi bu baax may lancer benn message ngir yàlla war a soli yow mi nga xam ne nit ku gëm nga nitu ngëm-ngëm nga te te gëm nga ne li yàlla wàccee mooy dëgg te gëm nga ne lu dul diine ak lu dul yàlla ak yonantu bi mënta tabax am réew ma lay ñaan di sàkku ci yow ngir yàlla ah demal nga woteel président Ousmane Sonko demal nga war président Ousmane Sonko parce que président Ousmane Sonko kat ah, coalition yëpp daw nañ ko coalition yëpp daw nañ ko demee côté bàyyi ko moom mu wéet ci xeexam parce que dafa nekk ci dëgg moo tax gis nga dëgg soo ci nekkee dangay ngay wéet wallaahi da ngay wéet parce que nitu nitu caaxaankat ah ak nitu fenkat bëggul dëgg parce que dafay peese ay intérêt gis nga am na yenn xeetu politiciens yoo xam ne seen intérêt suñ ko calculer mënuñoo ànd ak Ousmane Sonko mënuñoo ànd ak Ousmane Sonko parce que seen intérêt bi du ci nekk. ñoom intérêt Sénégal gëmuñ ko te Ousmane Sonko lépp li mu wax intérêt Sénégal moo ci ëpp kon nañ leen dimbale suñu bopp ñu yërëm suñu bopp nañ leen dimbale suñu bopp jéem fal président Ousmane Sonko 2019 mu yoral ñu Sénégal tabaxaat ñu ko parce que benn mandat benn mandat dañu war a wane suñu fulla ñun sénégalais yi Macky Sall dafa war a am benn mandat wàcc beneen politique seen dootu ñu yàpp xam nga ñun. ñun dañoo ñàkk fayda ñun sénégalais yi dañoo ñàkk fayda ba politiciens yi xam ne ñun dañoo ñàkk fayda mais suñu fayda ak suñu fulla pour ñu mën koo wane tey jii ne war nañ ko mën a wane ci 24 février bi wallahi war nañoo wane suñu fulla ak suñu fayda dégager Macky Sall ci première mandat léeg-léeg nag nga dégg ay nit naan la Ousmane Sonko amul expérience Ousmane Sonko xale la xale la pour yorum réew waa d'accord Ousmane Sonko xale la jeune la. dafa am ñoo xam ne foog ma tontu leen quoi wax ak ñoom ah, gis nga jàngkatu nasaraan yi ba am ay expérience wallaahi ñoom ñëpp dañu leen waroon a yóbbu fan xool seen problème mu bopp yi parce que dañoo feebar te feebar bu gën a bon moom lañ yore muy feebaru jubadi nan la la yàlla mën a mayee nga jàng ba am say lijaasa ba pare yaa gën a dëng mun tay ga gën a nekk tiriyan ci àdduna bi di nax sa askan di leen tiriyande ba pare dëng di tëddee say say di tëddee say rakk di tëddee say doom di foyee alalu askan wi jàng ba yor say lijaasa ana lu jàng di jëriñ sa waa ji ana lu jàng di jëriñ ngeen Ousmane Sonko xale la ñaata xale jamono ji Sénégal ñoo yor seen kër baay yor seen kër yaay nekk responsabilité bañ amee dix ans man ba ma amee fukki at laa nekk responsabilité sama kër baay ak sama kër yaay di leen dundal di leen woddu di yor sama kër baay ba ma amee fukki at kon xale warul yor réew te xale di yor kër ñaata xale ñoo fi mbëkk di jël gaal yi ngir lam ngir jom ak ngor pour soutenir seeni waajur kon xale yi ñoo ëpp jom mais Sénégal tey dañoo bëgg a jël ndaw ñi desal leen ginnaaw jël paa yi nga xam ne seen àdduna jeex na amatul lu ñuy bëgg lu ñuy bañ teg leen ci kanam mais loolu dafay jeex dootuñ ko nangu parce que ñun ndaw ñi ñoo yor suñu kër bàyyi man expérience bi Ousmane Sonko yor moo ma doy sëkk ak barke xam nga la moo doon moo ma doy sëkk ak barke gis nga expérience su njub expérience su gore expérience su nitu dëgg man expérience boobu laa gëm man loolu laa gëm ci expérience waaw parce que àdduna la ñaari expérience yooyu ñoo fi am expérience su sàcc expérience su jubadi expérience yi ñàkk ngor. moo am ci àdduna ak expérience njub te Ousmane Sonko njub kese laa gis si moom may sàkku di ñaan bépp sénégalais foo mënti nekk jugal nga jël sa kart nga sànnil ko président Ousmane Sonko yàlla gërëm la bul not sa réew parce que nga watelaat Macky Sall mooy tey jii ni delloowaan nga sa réew ci mbuum ak njaam mooy delloowaan nga sa réew ci mbugal delloowaan nga sa réew ci coono ay waaye ngir yàlla war a suul même su fekkee yow sa sa affaire baax na yow sénégalais bi demal nga sauver Sénégal ci pax mi mu nekk gars yi partagé leen vidéo yi bu baax partagé leen vidéo yi bu baax parce que njub lañ soxla waaw njub lañ soxla njub njub waaw ñun ay nitu dëgg lañ man nitu dëgg laa te dëgg ci laay dee te dëgg ci laa sax waaw man soxlawuma daraay kenn soxlawuma alalu àdduna man li may ñàkk di ko lekk rek doy na ma li may liggéey di ko am rek doy na ma parce que loolu mooy sama wërsëg ci kaw suuf waaw mais tey jii li ma gën a bëgg ci sama àdduna li ma gën a bëgg ci sama réew mooy li may gis di ci teg sama bët ci sama biir réew ci xeetu yàqu-yàqu ci xeetu mbon ci xeetu alaku loolu laa bëgg mu jeex ci sama réew parce que loolu mooy dimbale liggéeyu mag ñu baax ñi waaw parce que Sénégal dafa am ay mag ñu baax kenn du ko werante mais mag ñu baax ñooñ seen liggéey dañ koo yàq jamono jii ñi mu nekk jamono jii ñi nekk dañoo yàq liggéeyu mag ñu baax ñi parce que dañ ko falsifié parce que léeg-léeg temps yi maa ngi dégg ci internet bi xam nga gars yi di rumandaat ay affaire yi tarixa ay Idrissa Seck dugg na fii génn fi déedéet loolu du problème mu Sénégal loolu nañ leen ko teg ci suuf lu ma naqadi la man affaire yi tarixa gëw te bëgguma ñu koy dugal ci mbiram politique parce que politiciens yi man gëw ma ne ay jullit lañ bala ñoo nekk ay nitu tarixa man gëw ma ne sax ay jullit lañ loolu sénégalais yi war nañ koo teg ci suuf gis nga mbiram tarixa xam nga waruñ ko dugal ci mbiram politique ñun Sénégal lañ am te Sénégal ñun ñëpp ko bokk muy Murit Xaadir Laayeen Tiijaan ñëpp ñoo bokk Sénégal amul werante ñoo bokk Sénégal parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ñun Sénégal yi waru ñoo nangu politiciens yi ñëw di ñu xàjjale di tasaare ngir seen intérêt bopp loolu waruñ koo nangu waruñ koo nangu kun Sénégal bi xam nga lan mooy sa wareef yow mooy nga xool candidat bi gën sa réew. nga dem woteel ko moo gën ngay perte sa temps ci naan ah candidat bi kat sama xaritu sëriñ la wala candidat bi nii sama gaayanu sëriñ la loolu warul tax nga woteel nit woteelal nit ngir sa askan woteelal nit ngir sa réew woteelal nit ngir Sénégal jugee ko ci coono bii mu nekk waaw man su ma nekkoon sëriñ président Ousmane Sonko lay soutenir waaw parce que moo fi wax lu defendre diine te moo fi wax li diine bëgg waaw man su ma nekkoon jullit man man su ma nekkoon maanaam sëriñ Ousmane Sonko laay défendre waaw wallaahi du caaxaan parce que moo fi défendre bilan lislaam moo fi défendre diine lislaam parce que moom seul moo taxaw ne bés bu fara dana def ministre boo xam ne dana taxawu diine ministre ministre boo xam ne pour diine la pour diine kat moo ko fi wax amul dañ xam waxante dëgg kenn waxu ko fi kenn waxu ko fi waaw ñin ñin njub lañ am diine lañ am te diine diine diine lislaam ci njub lañu la ñu teg diine chrétien tamit ci njub la teg ay ñoñom waaw njub moo tax yàlla yónnee cent vingt quatre mille ci kaw suuf yàlla njub moo tax yàlla wàccee leen ci kaw suuf yàlla wàcceewul benn yonantu ci kaw suuf pour mu woote am ndëngate pour mu wootee tirian pour mu woote sàcc déedéet yàlla dafa wàccee ay yonantoom ci kaw suuf pour ñu sellal suuf si raxas suuf si jël nitu dëgg yi teg leen ci kaw suuf si ñu jëmale àdduna bi kanam dañ leen waxante dëgg te yàlla tax dañ leen waxante dëgg buñ naxante buñ naxante buñ tegante diil dëgg rek moo neex yàlla te lu dul dëgg lu dul dëgg du yàgg waaw Macky Sall Macky Sall moo la gën a xam ne nguuram gi jeex na moo gën a xam ne nguuram jeex na yàgg na waaw Sall gën a xam ne nguuram jeex na kon li may ñaan sénégalais rek moo ñu yeewu ñu mën naxa allo allo salaamaaleykum aleykum salaam waaw kilifa gi ñu ngi lay ziar waaw ziar weer ba alhamdulilah allo waaw sant yàlla alhamdulilah baay yàlla na sant yàgg waaw lañ bëggoon rek ci occasion bi participer tuuti si live bi ah. waaw comme niñ koy faral di defee rek euh, donc man fi may fi may njëkk a njëkk a duggee ci Père Ousa laay njëkk a fa waa di ko di ko wax rek ne ko moom lu mu wax dafa am solo parce que Pereira dafa ne. Mm-hmm. la mu njëkkoon wax koo bàyyi mais li mu wax nii bu mujj bii nii dafa am solo parce que moom dafa ne kandida candidats yële ay candidats France lañ. Mm-hmm. moom loolu la wax. dëgg la Sonko kese mooy candidat wu Sénégal. Mm-hmm. wante mu wante moom Pereira moom sénégalais mais moom candidat wu France lay woteel. maa dégg bu baax. mu koy wax li muy wax moom li muy wax moom na ci seet yàlla te xam ne du xale bu ndaw magum jëmm la te mu xam ne gis nga loolu muy def. Mm-hmm. di wote ngir France continuer di noot Sénégal ngir France di dundee ñun suñu alal non seulement dina ko layoo quatorze millions de Sénégalais yi nekk nii di dund mais les générations à venir tamit dina taxaw layoo ko ak ñoom. na moom li mu def sax dafa li mu def sax dafa yéeme parce que moom bu doon ko xamul sax ñu ne xamul mais moom xam na ne. Sonko kese mooy teewal Sénégal ñeneen ñi ci des ñëpp France la ñuy teewal mais moom nee na moom moom keneen day votal waa France quoi moom waa France la yéene alalu Sénégal quoi ñu ñu ko ne dëkk bu loolu bu loolu weesoo xam nga ñi wax rek Père Ousa na delloo si xelam quoi parce que des na affaire yi des na une semaine. dëgg la. waaw te li muy def nii di dóor pour Macky jox ko xaalis tamit terewul bu demee ca mbañ gàcce ga mun na voter pour Sénégal quoi. <laughs> waaw bu loolu weesoo mu ñëwaat si imaam yooyu ñoom pa roof roofaat ak yooyu pa yooyu noonu. dëgg la. parce que pa bi dégg naa ne sax moom non seulement bi mu demee si jumaa ji naan ay day ñam ñamaata ak day roof roofaat yu kenn xamul gars yi demaat nañ seet gëstu juwaat ko muy dëggalaat loolu quoi moom moo lay won ne kon pa boobu tey moom day daganal lu aram moom imaam bi day daganal lu aram. dëgg paa boobu tey ku ñëwoon ne ko dañu war a jël jàpp xaj togg ko ak sàngara saraxe ko si jàkka pour Macky Sall gagné moom am cinquante million ngi nii paa bi da koy def. te boobaa bu ko defee sax bu élection yi desee benn fan sax dina leen ne damaa bëgg ngeen dolliwaat pour mu gën a pour mu affaire gën a saf. moo lay woon ne ñoom non seulement pare jaay seen ngor mais pare nañ pour tayle diine ji ak ñi topp seen ginnaaw ngir alalu àdduna. dëgg la. loolu nag mooy wane ne état maçonnique bi ñu am. depuis cinquante neuf ans li mu doon liggéey lépp fu mu toll nii mat na buñ ñu demee ba tey ñi ñu jiite di daganal loo xaraam di daganal ger di daganal xaalis bu lewul di daganal xaalisu njirim ngir seeni intérêt yi bopp. dëgg la. ah nga xam ne instant bi ni affaire yi affaire yi na. bilaay wallaay. te sénégalais foog ñu bàyyi xel ci lii parce que mënuñu nekk ci réew moo xamante ne nii tey cinq pour cent de chrétiens ñoo fa nekk. dëgg la. quatre vingt treize pour cent de nafiq ak deux pour cent de musulmans. lool la moo waral yàlla bàyyi ñoo ñi di ñu jiite. <laughs> ñi àndoon ak ñi àndoon ak Senghor. <laughs> ba tey jii ñu ñuy jiite parce que yàlla da ne du ma soppi seen nekkin tant que yéen ci seen wàllu bopp jógu pour soppi seen nekkin. waaw dëgg la. ñun nag wax ñun ñun ñu ngi wax ak suñu borom ne ñun ndaw ñi ñun ngir ëllëgu suñuy doom wa rabbul kaaba pare nañ pour ba fi suñu bakkan ngir seen ëllëg ñoom ñun duñ def ni ñi fi nekkul li daan def ñun duñ ko def. nan leer ñun pare nañ pour soppi ëllëgi Sénégal ngir suñuy doom ak lu mu mënti jar. lu leer nga wax. loolu dafa parce que sénégalais yi li daf ci bëri ñoo xamante ni nii dañoo naafeq xam nañ ne sénégalais ku ko safara da nga koo njëkk a parce que naafeq ñoom xam nañ li ci sans borom wax ay ñu mel ni ay Tanor Dieng Tanor Dieng da lay leer ba leer ne Khalifa Sall bu nekkoon doomam heure bi mu ngi ci opposition bi di jaayante. waaw. Moustapha Niass tey Gakou bu nekkoon doomam heure bi mu ngi ci opposition bi di jaayante. lu leer nga wax. kon ba tey xeer xeer ba mu gàddu woon buntu assemblée ba mu ngi ko gàddu. dëgg mais li lay won ne ñooñu amuñu as as ngor amuñu ci dara mooy ñoom ñaar bi ñu àndee pour dem élection kenn nanguwul sa morom jiite jiite ba la ñoo tas kon tey su ma déggee ñu naan ay Macky Sall dafa mën a politique cinq sept ans ngi nii mu ñaar ñooñu. ay ay ree damay jàpp parce que ñooñu buñ jógee foofu fuñ jëm mënatuñu def candidature mënatuñu gagné élection mënatuñu def dara te iñaane nañu xale yi nekkoon seen ginnaaw di xeex gu guddeeg bëccëg iñaane nañu leen a jox la ngay dem ils sont obligés ñu ranger wu derrière Macky Sall di lekk lu xaraam di ko di ko dundee di ko di ci dox di ci wax. dëgg du xam-xam du ngor du diine du njàmbaar goree di kese la. dëgg ku ci ku kenn ku Abdoulaye Wade mu ngi nii quatre vingt quatorze ans la am ba mu ngi faat pour doomam. <laughs> kon ñoom ñooñu suñu gore woon ñoom wala ñu bu fekkoon ne ñoom liñ doon woote mu ngi si ñoom. dëgg la Tanor dina soutenir Khalifa Sall. waaw. Niass soutenir Gakou. Gakou waaw. mais nag sénégalais dafa gore di ci deretam. waaw lu leer nga wax. da ci bari ci ñoom ñoo xamante da ci bari ci ñoom ñoo xamante ni tey mun nga taxaw joxe sa bakkan ngir ñoom mais ëllëg bu cooree ñu ne la sawaay kon ñu def noonu. waaw leer nga wax. waaw loolu nag daf fi war a dañ. Mhm. loolu dafi fi war a dañ maa ngi dégg xam nga. Mhm. yi wax ay Aly Ngouille Ndiaye dafa ne ay xawma day day day day jël ay juróomi policier xaw ma juróom benn alkaati. Mhm. jox ko Sonko pour ñu gérer sécurité am mais Sonko ñu doon liggéeyandool boobu ba tey ñooñ dañ leen di désarmer ñu taxawee ne pour ñuy ñëw top ko di xaat xaataaral mais Aly Ngouille moom kan la yab. Ah, waaw jaajëfal. waaw dëgg la dëgg la. moom kan lay yab ba taxaw ba tey ay tey Cissé taxaw fi ne Sonko dañ ko war a rey loolu kenn mujjul fenn kenn waxtaan kenn waxtaane wu ko sax. billaay wallaay. ñuy jël ñuy jël sécurité Sonko di ko teg seen loxo ñoom ñoom wér nañ Sénégalais yi lu ma leen di wax mooy. mooy hmm. Baye Fall ñi amul ñi jotagul seen carte nañ dem jëli seen carte mu jaral leen lu ne. waaw. ñu jot seen carte ñu jot seen carte nañ ko denc jour vote ba ñu xëy six heures yu matin dem vote ji sécuriser vote bi. waaw balaa zéro heure incha allahu taala ñu joxe résultat yi Sonko jàll premier tour coow li jeex gis nga Macky Sall mii ñuy wax nii. Hmm. ay gañe naa gañewul di wax ay waxi dof gis nga Macky Sall bu gañe woon. lii hmm. du ko ci fekk organiser concert waaw organiser contrat ay mbër hmm. organiser théâtre wéeri wéeri hmm. fay nit ñi jox leen tissu ak tiset jox leen transport pour ñu ñëw seetaan si ko saa coono boobu yëpp ku gañe du la ko jaral non du la ko jaral dëgg la Macky Sall gën a ne wallaahi azim day perte élection yi ci ni wala ci naa wala ci nii ak ci naa loolu moom moo la ko gën a xam foofu. dëgg la Fall ngi ñu ngi jégalu. bañ gën a guddal xam am na solo am na solo ba am na solo trop la bëggee rek comme d'habitude quoi ñi ngi rafetlu liggéey bi xam nga. jaajëf di la encouragé bu baax a baax a baax jaajëf Fall jaajëf. jaajëf baay am na solo trop. jaajëf jaajëf. ok gars yi gis waa la rek parce que euh, Macky Sall mënut a gagné élection yi li mu wax dëgg la Macky Sall moo la gën a xam ne perte na la gën a xam fi ba xam boppam bu baax kun instant li jot moo nañ leen jéem a taxaw fexe xool kan la ñuy fal ci réew mi ëllëg mu war a mën a nekk avenir bu baax ci Sénégal parce que lii ñuy def nii waratuñoo continuer di ko def gis nga combat bi ñuy combat nii dafa war a jeex parce que dañoo sonn dañoo wax bay bëgg a dee dañoo jëf bay bëgg a dee tey jii nii war nañoo fal président boo xam ne tey jii ñun ñun suñ coono day wàcc dootuñ nekkati sax si internet yi di taxaw di naqarlu li sénégal yi di dund parce que boobaa coono bi day jeex xam nga ñi feebar mën a faju ñi amul liggéey ñi man leen teg maanaam li ñëpp bokk ñëpp jot ci loolu daal man gëm naa ne mooy combat bi gën a mag te Sénégalais yëpp war a taxaw pour xeex loolu pour mu jeex Sénégal gis nga notaange bi dafa war a doy te notaange bi ay complot li ma leen wax rek complot moo ci nekk dafa am ñu jàpp Sénégal otage di kumpuloo Sénégal pour tëdd ci alalu Sénégal yi ba abadan loolu moo war a jeex loolu moo war a jeex maa ngi ñaan yàlla di ñaanal Sénégalais yëpp yàlla di leen wax ne xam nga élection yi ñu génn ci ak jàmm waa ñi dugg nañ ci nag mais ñu génn ci ak jàmm ak salaam ñëpp jëli seen carte suñ jëlee suñ carte yi ñu fexee folli Macky Sall fal président Ousmane Sonko deux mille dix neuf ñu tabaxaat beneen Sénégal bu baax su fekkee nag yow bëgg nga njub am su fekkee bëgg nga dëgg am su fekkee bëgg nga alalu Sénégal di des biir Sénégal yow sénégalais bi may waxal fekkee pere nga pour loolu am sa biir réew nañ fexe ñu folli Macky Sall nañ ko fi jëlee parce que Macky Sall du nit ku baax Macky Sall baaxul ci réew mi Macky Sall jigul Sénégal Macky Sall lim yàq ci Sénégal golo yàq ko ci tool. nañ leen waxante dëgg te yàlla tax Macky Sall moo not Sénégal yi Macky Sall moo delloo Sénégal ginnaaw waaw ñun dañ koy wax ci kaw man dama koy wax ci kaw saa su ne Macky Sall moo delloo Sénégal ginnaaw Macky Sall moo fiy jënd ay sëriñ Macky Sall moo fi jënd ay imam Macky Sall moo fiy jënd ay mbër Macky Sall moo fi jënd ay théâtre kat lépp ngir nguur a ko ko jaral muy jël alalu Sénégal bi sama koñ barki démb ñett kaar lañ fa duy di leen yóbbu benn nit bu nekk cinquante mille la leen Macky Sall fay fukki junne kenn nit ku nekk imagineel ñett kaar cinquante mille cinquante mille nit ku nekk loolu ñaata la ci xaalis est-ce que xaalis boobu noonu amul ñu ko gënoon a yeeyoo ñooñu noonu waaye Macky Sall yoonam newu ci parce que dafa gëm ne Sénégalais yi gëmuñ dara Macky Sall dafa gëm ne Sénégalais yi gëmuñ lenn loo leen def baax na mais nag ñun il faut ñu wan ko ne ko ñun dañoo gëm dara ñun dañoo bëgg dara. parce que suñu avenir réew dañ koo bëgg te dañoo bëgg jël seen réew teg ko ci loxo yi leer dañoo bëgg jël seen réew tabaxaat dëkk bi mu nekkaat beneen senegal njub dellu si dëgg dellu si xam nga justice bu baax dellu si waat ci réew mi ñun loolu la ñuy sàkku te loolu la ñuy combat pour mu am biir Sénégal parce que Sénégal dafa nekk réew boo xam ne tey jii nii li fi nekk ci ay góor jigéen dafa ëpp li fi nekk ci caga dafa ëpp li fi nekk ci di dafa ëpp te loolu ay poson la yoo xam ne su nekkee ci biir askan su yàggee day màbbal askan wi waaw su yàggee day màbbal askan wi baaxul ci réew billaahi baaxul ci réew nañ leen gëm yàlla nañ leen gëm yàlla ñu jëlee fi mag Sall xaalis du yàlla xaalis du yàlla ba nit war a koo jaamu nit dangay gore sab ngor fum la fekk fala lay fala la war a bàyyi wallaahi du caaxaan waaw xaama jël waaw nit mala bañ war ko di jënd salaam waaw sama waa ziar naa la ziar nañ bu wér a wér waaw ziar nañ la jaajëf waaw maa rafet dégg allo. rafetlu rafetlu ma ko. allo. Malick ak Baye Niass ñu bàyyil ay valeur yoo xam ni buñ ci jàppoon du ñu ñee kenn ci lenn allo allo waa réseau bi la quoi sama waa waaw réseau bi la quoi li ma wax daal mooy ah Baye bàyyi na fi ay valeur yoo xam ne tey suñ ci jàppoon Sénégal mën na jugee ko fii mu nekk sëriñ ko fii mu nekk ak sëriñ yëpp bàyyi nañ fi valeur loolu noonu nag dañ koo tegee nale waaw ñi waroon a défendre sëriñ si falsifié wooteeb góor yàlla yi di ci ut alal di ci ut koom àdduna di ci ut tuuru àdduna dañ koy wax parce que liggéeyu góor yàlla yi dañ ko falsifié léegi góor yàlla yi seen combat bi nekkuto nekkatul combat ak diggante ñoog tubaab bi te góor yàlla yi ñoog tubaab bi ñoo loon combat tey ñi falsifié xeexu góor yàlla yi jël jël combat góor yàlla yi def ko ñin sin biir comprendre ñi naan tiijaan bi wo bëggul murit bi murit bi bëggul tiijaan bi léegi falsifié nañ woote góor yàlla yi ba combat bi nekk suñu biir ñin te te bu njëkk góor yàlla yi tubaab bi lañ doon xeexal ñoom góor yàlla yi ñu am problème mais tey utkatu daraja yi ak utkatu alal yi borom koom-koom yi ñuy ut koom àdduna ñoo ñooy jaxase diine ji ñoo ñooy tasaare diine ji parce que ñoom diine ji yàqu dara ñorul leen ci ñoom alal buñ ci am moo leen ñor moo tax jamono ji ñu toll ngay gis sëriñ bu tabax ay building sëriñ buy dawal ay 4-4 sëriñ oustaz buy dawal ay 4-4 jamono jii nga koy gis mais jamono ju njëkk ja sëriñ yi seen yére yi sax amuñu ay poos lépp lu ñu laan am ci baa doole yi la jëm dañ laan bay di dundee daan dimbale néew di doole yi di di def njub di def njub ci jaamu yàlla yi mais tey jii ni falsifié nañ loolu yëpp ku ci nekk alalu àdduna moo la ñor ku ci nekk xaalis moo la ñor waaye xaalis du yàlla. xaalis képp ku ko gëm jàpp na yàlla nga xaalis yàlla la yaa ngi nax sa bopp yàlla rek moom mooy yàlla waaw nañ leen waxante dëgg te yàlla tax ñu dellu si waat suñuy valeur li fi seen maam yi bàyyi muy valeur bu baax fii ban jigéen nga fiy gis muy roy maam Diarra Bousso Sénégal ban jigéen nga fi gis muy roy maam Assa Diankha ban jigéen nga fiy gis muy muy roy maam Fawade Wele amul jigéen du dox ban nga ne kii comme sa Diankha jigéen du dox ban nga ne kii comme maam Fawade Wele parce que jikko yi ñoo yàqu ay Rihanna la ñuy roy tele yi télé yi lañuy ñuy déglu ñu leen di wax lan la ñu war a sol di leen wax lan lañu ñu war diwoo di leen wax nan lañu ñu war a mel lii lañu ñu war dund ak lii jamono jii nii loolu lañuy dund biir senegal te kilifa diine yëpp a ngi na tekk waaw ñëpp a ngi na tekk na ngeen waxante dëgg te yàlla tax senegal dañ ko war a tabaxaat ci njub Sénégal dafa war a am njub. parce que nekk na réew moo xam ne ah mënoo nekk jullit ba pare ah bëgg a bañ njub bañ na yow yàlla yàlla njub yàlla gi bëggoo ko non loolu mënul nekk loolu mënul nekk nañ leen dëggu gis nga ñun jullit yi jukko yi ñu yore chrétiens yi sax yoruñ ko wallaahi chrétiens yi ñoo ñu gën fii ngay senegal ngay gis chrétiens yoo xam ne soo leen gisee sax ay jullit nga leen yi foog parce que jikko ju rafet gi ñu yore maandu. teg seen i mbir ci yoon teg teg ci dëgg ñun jullit yi ñooy naan sàngara yi góor jigéen boo fi jàpp jullit la caga boo fi jàpp jullit la comprendre ah sàcc boo fi jàpp jullit la trian boo fi jàpp jullit la ba pare ñun jullit yi ñuy bakkoo xam nga chaque jour ñuy yuuxu di rëy làmmeñ naan ñoo fi gën ñoo fi gën diine ñoo fi gën li ñoo fi gën lii te ñun gënuñ fi dañ waxante dëgg te yàlla tax ñi bàyyi falsifié bi tey waxante dëgg raayante bi moo war a jeex nañ leen bàyyi bàyyi seen xel bu baax na Sénégal mënta dem mukk te njub amul njub rek moo mën a tabax réew mi njub rek moo mën a yóbbu réew mi ci kanam wallaahi du caaxaan gi nga suñ fi ñukk njub jël xaalis ndax xaalis moom rek moom moo war a bëtt lépp lépp loo xam ne bëgg nga koo faj Sénégal xaalis ngay jël wallaahi ci sànko la réew mi jëm billaahi wallaahi tallaay ci sànku la réew mi jëm waaw parce que suñu doom yi nii ñu mel neexuñu billaahi suñu doom yi nii ñu mel neexuñu dañ leen waxante dëgg rek te yàlla tax parce que suñu demee ba Ouzin Keita Ouzin Keita ah di taxaw Marème fay Sall di yëkkati deux million di ko jox naan ko maa ngi lay encouragé ci li ngay dund ci li ngay def te Ouzin Keita képp koo xool jëmmam ji rek ah nga xam ne kii dafa aloo ko yàlla daf ko alak Marème fay Sall yëkkati deux millions teg ko ci loxo Ouzin Keita na ko yow Ouzin damaa kontaan ci yow damaa bég ci yow. parce que état bi ñooy dooleel góor jigéen yi parce que état bi ñoom ñooy dooleel ngóor jigéen te góor jigéen li ci yàlla wax ci alxuraan imaam yi jàng nañ ko sëriñ si jàng nañ ko dañ leen waxante dëgg rek te yàlla tax dëgg moo jeex Sénégal dañoo crise dëgg crise lañ def dëgg crise ay valeur xam nga dañoo crise loo xam ne xam nga moom la fi seen maam yi bàyyi woon ñu ko loon tiitaroo fépp foo mënti taxaw ci Sénégal li tiitaroo li fi li fi sa maam bàyyi woon mais tey jii nii naxasal nañ ko ñëpp dëgg ci seen tànk ndax koom-koomu àdduna xaalis mooy liy jeex muy poñetu àdduna ku ci nekk di ko xëccoo wër na rasulullaay mais mel ni lépp ndam la alal ndam la soo amul alal ñu ne yow yow doo nit même sooy seeti ab sëriñ sax di joxe addiya soo demee ba amatoo doole boo joxee ji àddee sax soo ñëwee sëriñ bi dina sewal ndax xaalis jaa jënd na ngor yi jënd diine yi xaalis ku ci nekk jël ko di ko bàkkoo di fëgg sa dënn na soo ko amee ku la neex nga tëj ku la neex nga tëj kenn du la yóbbu kaso soo yoree xaalis ñi jël xaalis justice bi nga xam ne moom mooy atte jaam ñi sax mu nga toog ñu koy ger ak xaalis muy sànq ay doom aadama te nit dafa foor doomu aadama moo gën a ëpp valeur lépp loo gis ci kaw suuf doomu aadama moo la féetee kaw nga jël xaalis fay ko nit mu tëj nit ci kaso bi nga sànq doomu jàmbur ji nga jël xaalis dem ci sëriñ fay ko na ko dof loolal nit ki walla rey ko bu mu dundati ci àdduna ndax sëriñ bi encaissé xaalis bi rey la waaw jël fitis jël njabarante ah ku ci nekk di liggéey sa morom kenn bëggul kenn dem ku ci nekk rek soo xëyee da ngay fexe liggéey kële pour mu dee yow nga avancé loolu rek moo am Sénégal te bañ dalee liggéeyante ba léegi kenn avancé wul xoola exemple bi ci Europe tubaab yi duñ takk gàllaaj tubaab yi duñu takk téere tubaab yi duñ sangoo ay saafara di ko takk seen bunt néeg fu ne tubaab yi duñu ko def te ñoo gën a avancé si àdduna bi kun ñun takk ay gàllaaj ak naan ay sungu fa ki sangoo ay kii su fekkoon daf ñuy avancé loo ñooy raw tubaab yi kun loolu daf ñuy delloo ginnaaw parce que yàlla raxut yàlla da nga koy dund ak unique da nga koy wóolu fonk ko rek nga mën a dem wallahi du caaxaan ñaata nit ñaata nit lañ fi liggéey ñu dee fii biir senegal ñaata nit lañ fi liggéey ñi feebar mënatuñoo jug ñaata nit lañ fi liggéey ñi tëdd ci kaw hôpital bi pelin bari senegal nit ñi di lekkante comme ay dëmm loolu ba kañ soxor boobu ba kañ iñaan boobu ba kañ na Sénégal yi delloo ci seen xel na Sénégal yi delloo ci seen xel barke rasulaay gis nga réew mi mënta dem mukk te teguñ ko ci dëgg bàyyi iñaan bi bàyyi soxorante bi parce que lu dul yàlla neen la nañ gëm yàlla te doyloo ko te jéem a sàkku njub yar ndaw ñi ci njub yar ndaw ñi ci sell ci ngëm ñu mën a jëmale réew mi kanam man loolu laa gëm ne moom mooy dëgg gaay yi partagé leen vidéo yi bu baax ku la ñoddi ah, ku la ñoddi leneen ci àdduna te ñoddiwul la njub ak ak nekk gor billaahi man gëm naa ne li nga ma ñoddi loolu zéro la neen la du dara parce que man dama gëm ne njub rek njub rek lay nit di mën a am ah man ma ñee la man man ma ñee la mais xaalis man du ma ci ñee nit waaw mais sénégalais yi nag jamono jii xaalis rek lañ jël teg ci seen bët parce que état bi dafa leen xiifloo sonn loo leen ku xëy amoo sax jàpp na dañ laa liggéey ku xëy non Sénégal yi delloo leen seen xel bu baax delloo si leen seen xel gis nga yàlla yàlla dafa wàccoo ak jaamam bi yàlla dafa wàccoo ak jaamam bi Sénégal ngay gis ñiy jiiñ yàlla lu ne di ko taqal lu ne mais yàlla dafa ñu dara yàlla jox nañu xel ñiy xalaat yàlla def nañu ñuy nit yàlla def nañu jox nañuy wërsëg yàlla jox nañu lépp loo xam ne yàlla wàccoon nag ñin desalatu ñu dara mais tey jii lu xew ñu ne yàlla la lu xew ñu jiñ ko yàlla Macky Sall di sàcc alalu Sénégal ñu ne non yàllaa ko fi teg heure bu jeexalee est-ce que yàlla da ko fee teg pour muy sàcc alalu Sénégal di ko yóbbu Europe est que yàlla da ko fee teg pour mu yàq Sénégal dañoo war a jug taxaw ñi xam ne li ñu métti ah kenn ñu ko lu dul makki sàll lu ñu naq naqadi kenn teguñu ko lu dul Macky Sall pour loolu ñu jëlee ko fi nag ñun yi ñoo war a jug taxaw booloo nekk benn pour jëlee fi loolu noonu ñi bàyyi naafiq bàyyi farfarloo bàyyi jukko ju araam ji ñuy dund soxor baaxul soxor iñaan moo gën a bon ci àdduna réew bu koy mbuboo doo dem barke rasulaay réew buy mbuboo soxor ak iñaan doo dem waaw dëgg suñu ñëwee dañ koy teg ci taabal bi ñu wax ko te dee parce que fii kenn moomul kenn damaa juddu nu nga juddoo kii juddu ni ma kii juddoo comment ñun ñëpp ay doom aadama lañ kii gën ci nit ñi nag mooy ki gën a ragal yàlla te ki gën a ragal yàlla moo gën a jub ci nit ñi waaw te réew suñ demee bay fal ab président war na nañoo fal nit ku jub nit ku gore war nañoo fal nit koo xam ne nii tey jii nii fu fuñ taxaw ah mu siggil ñu ci diine siggil ñu ci ngor siggil ñu ci jom ñun nit kooku lañ war a sàkku pour fal ko ci ñum réew mais war waruñoo jël for ku ne kuñ foree fële rek jël ko teg ko ci ab réew loolu ñu dal ci Macky Sall mais Macky sàll suñ suñu leeroon na lii nii nii nii nii moo nekk ci moom li ñu gis si moom nii wallaahi du nekk président Sénégal Macky sàll diine ñoru ko Macky sàll lijjantiwul sax diine Macky sàll gëmul sax yàlla ji na am na Macky sàll lijjantiwul bañ na ba jàngul sax alxuraan Macky Sall bañ na ba jàngul sax alxuraan kan moo mës a gis Macky Sall di tari alxuraan. kan moo ko mës a gis muy tari ay ay alxuraan du am te doo ko gis ba abadan doo ko gis ba abadan te lu gën a yomb ci diine lu gën a yomb ci diine lay Macky Sall di jaxase te doo dégg benn imam bu taxaw na ko Macky Sall de diine de bëggut soo ci mënut demal nga jàngi wala soo ko mënut bu jaxase diine doo dégg benn imam bu ko wax Macky Sall doo dégg benn sëriñ bu ko wax Macky Sall parce que lan moo tax mooy koom-koomu àdduna muy poñetu àdduna yi. yi muy weccat di leen koy jox moo tax lum jalgati ci diine duñ ko ko wax waaw Iran Ndaw lu muy mën a mën a waaraate du ngeen dégg mukk mu ne Marème fay Sall bàyyil sa fecc yi ngay fecc parce que kilifa du fecc laaj leen ndax dégg ngeen benn waaraatekat bu koy wax Marème fay Sall te Marème fay Sall tànk bi moo gën a gaaw oto këndëng këndëng su ko déggee mooy tànk bi jug na di yëngatu ban réew ngeen mos a gis ñu tabax ko ci ay fecc ban réew ngeen mos a gis ñu tabax ko ci ay tëgg concert di tëb ko dal Macky Sall di fecc comme mbaam ñëpp teg ci seen bët bàyyi ko Marème fay sàll di tëb di dal comme kenn xamul li muy nirool ci àdduna mais na leen waxante dëgg te yàlla tax ana nitu diine yi ana nit ñu xam ne ñoom ñoo saxoo diine ñun suñ jàddee yoon ñu ñoo ñu war a tegaat ci yoon mais lan moo tax Macky sàll jàdd yoon te kenn tegul ko ci yoon waaw nañ leen waxante dëgg te yàlla tax quoi nañ leen waxante dëgg. dëgg moo neex yàlla ñun ñëpp dañuy dee dugg ci biir suuf amul kenn ku fi des amul benn mbindeef boo xam ne yàlla dana la bàyyi ci kaw suuf ngay continuer di dund kun dëgg su ñëwee nañ leen taxaw yëkkati suñuy loxo ñu wax dëgg te yàlla tax parce que dëgg moo neex yàlla man dëgg laa gëm dëgg laa gëm wallaahi dëgg laa gëm waaw xaalis soo ko gëmee am na loo xam ne doo ko mën a wax doo mën a wax dëgg su fekkee da nga jël xaalis daf ko muy sa ngëm-ngëm ah da ngay naxante ci àdduna pour am xaalis dana la jaral lu nekk moo tax man borom alal du ma ko mos a ñee ci àdduna man su nit amee alal dama koy yërëm waaw parce que xaw ma nan la ko amee barke rasulullaay Youssou Ndour a ngi nii oustaz yëpp waroon nañoo booloo waar ko oustaz yëpp waroon nañoo booloo waar Youssou Ndour imaam yëpp waroon nañoo booloo wax ak Youssou Ndour parce que Youssou Ndour dafa jot. pour mu bàyyi fo Youssou Ndour dafa Youssou Ndour na dem nekk noddukat Youssou Ndour na tuub dellu ci yàlla mais kan mooy dooleel yu Ndour muy i Sall mooy dooleel yu Ndour parce que ñoom ñaar ñoo yem jukko ñoom ñaar ñoo bokk li ñuy dund mais ñun Sénégalais yi nga xam ne bokkuñ ak ñoom li ñuy dund nañ leen gore jéem a reculer reculer jéem a xoolaat li seen maam yi doon dund ak fi seen maam yi tegoon seen tànk ñu jéem faa teg suñuy tànk pour avancer parce que Youssou Ndour kat du royukaay dama koy wax di ko dénoncer di dénoncer Youssou Ndour du nit ku ñuy roy Youssou Ndour du nit koo xam ne nit war na ko taxaw sax di seetaan parce que Youssou Ndour moo fi feccloo suñ maam yi Youssou Ndour moo fi feccloo suñ baay yi Youssou Ndour moo moo ñu fi feccloo ñun te Youssou Ndour dana feccloo suñ doom yi. waaw moom la moom benn jëmm jooju la ba léegi nañ leen waxante dëgg te yàlla tax xam nga man Wally Seck contre naa ko bépp xeetu kont moom Wally Seck parce que man gërëmuma ay solinam gërëmuma Wally sekk ci li muy dox waaye nag am na loo xam ne danaa ko nangu ci moom am na benn am na benn ngor benn dignité bu xaw a nekk ci moom boo xam ne ni mooy moom du nangu nit di ko jënd di ko waye di loo ci yenn yu ñàkk fayda yi man duma ko ciy gis su ma ko ci gisoon rek wax ko waaw mais du question damaa faral Wally Seck wala damaa ànd ak moom mais gisuma loolu ci moom loolu moom xaw na koo jël mu nekk dignité mais nekk tama ñi lay tëggee ñaari boor nekk géwél taxuta nekk nekk géwél taxuta ñàkk jom waaw géwél géwél dafa nekkoon nit koo xam ne nit ko am jom la woon muy géwél parce que géwél moo laan bakk jàmbaar ñi xam nga bàkk jàmbaar mooy lan mooy jàmbaar yi nga xam ne ñoo laan dëgg seen tànk ci dëgg daan xeex ngir dëgg am géwél yi ñoo laan leen bàkk di leen ñaax pour ñuy gën a dëggal seen bopp loolu moo loon rôle géwél bu njëkk mais tey rôle falsifié nañ ko géwél jël géwél soppi ko def ko muy nit ku ñàkk jom ak nit kuy ñaanaatu ak nit koo xam ne moom pere na pour wane taatam ci kanam écran ñëpp di ko gis suñ pere na ko li nga def baaxul mu ne noo géwél laa garaawul géwél mooy ko amul frontière wax koo xam ne mun na wax ba def pelanti ci wax suñ ko laajee na ko ah def nga pelanti ci wax de mu ne noo géwél laa am naa droit wax lu ma neex déedéet amul benn mbindeef ci kaw suuf boo xam ne am nga droit xam nga di wane say taat ci écran am nga droit ñàkk jom am nga droit lii loolu géwél moomu ko loolu xeetu nitam la ci boppam dañ leen waxante dëgg te yàlla tax géwél bu njëkk looloo ko taxoon a jóg géwel yi ñoo laan ñi xamal suñuy histoire suñuy histoire maam géwél yi ñoo laan ñu ko xamal bu baax ñi xam ne suñu maam yi lii lañ laan def ak lii léegi golo gu jóg na géwél laa di ñaanaatu buuxuma la nit kuy dundee ñaanaatu nit day gëm boppam nit day am jom nit day am ngor dem liggéeyu sàkku ji lim dundee wallaahi du caaxaan waaw da waxante dëgg te yàlla gars yi partagé leen vidéo yi bu baax da ngeen waxante dëgg te yàlla tax Sénégal dëgg moo fi jeex waxante dëgg moo fi jeex ay naaf féq ñoo fi nekk bëgg alalu àdduna parce que tey Ndoye Bane suñ demee ba muy taxaw di dal ci kaw Ousmane Sonko dara warulu ko lu dul alalu àdduna mais Ndoye ku nekk xam na ne Ndoye nekk na nit koo xam ne du référence fii biir Sénégal te Ndoye ku nekk xam na ne moom li muy def yàlla gërëmu ko ah Ndoye Bane tey su caga amee doole Sénégal Ndoye moo leen dooleel parce que Ndoye Bane bokk na ci ñuy encouragé caga yi bokk na ci ñuy encouragé góor jigéen yi am na sax ñuy wax nañ Ndoye Bane góor jigéen la am na ñu koy laam-laamee na Ndoye góor jigéen la waaw genre nit yooyu nag ay góor jigéen ay dunk deux pièces xam nga di taxaw naan da ngay dal ci kaw président Ousmane Sonko yow Ousmane Sonko moo la gën parce que Ousmane Sonko kat lu dee dee defal na Sénégal loo xam ne nii tey jii nii ah Sénégal yi yëpp ànd nañ gërëm ko kontaan ci moom. mais alalu àdduna moo tax ngay tëb ñi lay fay ngay yàq deru nit wala nga naan da ngay taxaw pour gàllankoor nit ki waaye barigo ci mbartal kenn mënu ko gàllankoor Macky Sall day daanu nga défendre Macky Sall nga ànd ak moom nga dimbale ko koo mënti doon Macky Sall day daano Macky Sall sax moom xam na ne day daano parce que su nekkoon kilo ci réew mi léegi libre la Dakar du saf ñaari yoon Macky Sall sappi na Dakar mënta saf ñaari yoon waaw parce que ñun Sénégal yi ñooy fal de gis nga kër sëriñ yi muy dem nii di wër moom Macky Sall kër sëriñ bu nekk mu wër toog fa xam nga di sàkku pour sëriñ si neexal taalibe yi pour ñu wote ñun taalibe yi ñoo lànk waaw ñun taalibe yi ñoo lànk duñu woteel Macky Sall amul benn sëriñ bu mën a wax ba tax ñu jug dem woteel Macky Sall parce que ñun sëriñ yàlla lañ koy toppee amul benn sëriñ boo xam ne dañ lay topp ngir woteel Macky Sall séquñ kook yow parce que suñu dépense yi ñuy joxe ca kër ga ah amul benn sëriñ bu ñu koy joxalee parce que sëriñ yi ñoom seen seen ginnaaw ba ndang de sëriñ yi ci étage la ñuy fanaan di dawal kat-kat yu rafet te suñ feebaree Maroc la ñuy fajoo ji wala Europe ñin ñooy dee ci taataawu ndox yi ñin lay xetu salte yi di rey ñin lay opi ñin ñooy nekk ci hôpital yi suñ feebaree duñ mën a faju est que loolu gis ngeen benn sëriñ di buuxante ci hôpital yi amul kun yow taalibe bi gëmal sa bopp nga xam ne sa réew su changé yow ci nga mën a yëg sa bopp ci biir réew mi parce que amoo lenn lu la mën a may xaalis kun bul woteel Macky Sall ngir sama xaritu sëriñ la bul woteel Macky Sall ngir day seet si sama sëriñ nañ leen waxante dëgg te yàlla tax Sénégal nag dafa bëri ay mbindeef yoo xam ne dañ fee nekk jànguñ alxuraan jànguñ nasaraan ay alphabet lañ dafa bëri Sénégal ay nit ñoo xam ne jànguñ jonguñ jànguñ côté bii jànguñ côté bële génnuñ Sénégal waruñ xamuñ li gaal gi di riir dafa bëri Sénégal te ñooñu noonu tey dafa jot ñuy wax chaque jour pour di leen yee parce que am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne diggante sëriñ ak taalibe esclavage la maa da war a nekk jaamu nit déedéet sëriñ yàlla lañ koy toppee. sëriñ danga ko war a topp pour mu teg la ci siraatal mustaqim muy yoonu yàlla bu leer bi teg la ci njub teg la ci dëgg loolu la ñuy toppee sëriñ mais gis nga sa réew ah sa réew li ngay dundee sa dépense ah loolu yaa ko mën a liggéey pour am ko yaa ko mën a liggéey pour am ko sëriñ yi liggéeyuñ de dañuy tëdd di nelaw dañuy tëdd di nelaw xaalis di leen fekk si waaw yow yow soo tëddoon nelaw xaalis du la fekk si kun bokku leen kun yow war nga xool na sa réew war na mën a tegu ci yoon pour nga jot ci xéwalu réew gi parce que soo liggéeyu doo lekk nañ leen waxante dëgg te yàlla tax bu fi benn sëriñ guux maay nu kenn wate yi jot na ginnaaw suba la léegi léegi léegi ñu wate ji te incha allah suñuy wate ji kenn ku nekk war na mën a jug sa responsabilité nga wate nga wate ak sa conscience nga xam liy doxal sa réew xam ban candidat nga war a fal pour mu tabax sa réew ëllëg sa avenir doom man cee taxaw waaw say doom suñu yàqoo amul benn sëriñ buy taxaw di defar say doom say doom nekkee ay caga sëriñ si duñ ci wax say doom nekkee góor jigéen sëriñ si duñ ci wax waaw kun soo bëggee noppalu góor yàlla yi bind nañ ay xasida bàyyi fi alxuraan a fi su fekkee bëgg nga noppalu yow taalibe bi bul nangu ñi lay jaay su fekkee bëgg nga noppalu dellul ci xasida góor yàlla yi nga koy liir mu delloo sa ngëm delloo ci sa njub delloo ci alxuraan bul nangu bul nangu kenn di la moom parce que nit nit kenn yeyoowul pour moom ko nit yàlla rek moo yeyoo pour moom ko parce que yàlla mooy borom jaam ñi waaw kenn sàkkul ku dul yàlla kenn reyul ku dul yàlla kon li yàlla moom nañ leen ko ko delloo li nit ñi moom nañ leen ko ko delloo loolu mooy dëgg waaw man loolu laa gëm waaw man loolu laa gëm waaw parce que parce que sëriñ ah kenn forcé wu ko pour mu nekk sëriñ moom moo moom moo jaayanteeg yàlla pour yàlla defal ko pour mu jubal jaam ñi parce que yàlla moo wax ci alxuraan ki xam di xamale moo gën ci nit ñi ki jub di jubale moom mooy ki gën ci nit ñi waaw te tey Sénégal ñi nga xam ne dañoo jub di jubale sax xoola considéré wuñu leen dara parce que jàngalekatu daara yi nii ñiy jàngale daara ci daara yi ci alxuraan di yar nit ñi ci alxuraan di leen jàngal njub ñooñu kanaa xamu considéré wuñu leen dara ci réew mi ñoo gën a dellu ginnaaw ci Sénégal muy sëriñ daara yi jàngalekatu alxuraan yi ñoo gën a torox ci Sénégal seetlu li ma lay wax bu baax demal nga wër sëriñ daara yi suñu añee duñu reer yor ay téeméeri taalibe duñu am lu ñu leen dundalee taalibe yi di yalwaan ci mbedd mi di taxawaalu est-ce que loolu noonu Sénégal mérito na ko nit di jàngale alxuraan gën a torox ci réew mi est-ce que Sénégal war nañoo seetaan ñiy dund loolu ak li fi mag ñi baax ñi def ak li fi mag ñi baax ñi xeex yépp jàngalekatu alxuraan nekk ku gën a torox ci Sénégal seen taalibe yi di yalwaan doxalinu yàlla ñi seppi ko ci état bi amul dara yàlla loo xam ne ni tey ji mën ngaa dem ci constitution Sénégal fekk ko ci ñi ne yàlla bu mu bokk ci suñu doxalin na seytaane ñëw taxaw bokk ci suñu doxalin ñëpp xam ko na ci teg teg ci seen bët kan moo ciy wax ah? dañ leen waxante dëgg te yàlla tax buñ nax saalum saalum yi buñ nax sénégalais yi dañ leen waxante dëgg te yàlla tax naxaate bi dafa doy parce que coono bi ñun askan yi ñoo koy dund nañ leen dimbale alxuraan ji dimbale daara ji waaw fii la ñuy nekk taxaw naan ay sëriñ daara bandi am na feek sëriñ daara wóyu am na feek est-ce ce que tey jii nii suñ taxaw woon diine yi benn xeetu taxaw bu baax est-ce que sëriñ daara wu bandi dana am est-ce que taalibe bandi dana am est-ce que taalibe Guinsman dana am ah? fii lay nit di jàng alxuraan ba jeexal takk ba naan téere yi nekk nekk taxawaalukat doo tekki dara ci réew mi ah? fii lay nit di jàng alxuraan ba naan téere yi di ambulant ci mbedd mi nit jàng français ba mokkal ñu jox ko poste mu toog di jubadi di sàcc alalu askan wi di wiiri alale askan wi di ci tëdd nit ñu jub ñi ñu téye leen di leen traité ay lu ne lu ne bépp xeetu traité ñu na koy traité dañ leen waxante dëgg te yàlla taxawaay Sénégal sénégalais xam na liy dëgg fii dofuñ fii dof moo amul Sénégal nga Sénégal dof amu fi ay dof doflu moo fi nekk fees fi dell waaw ay nit ñuy dof doflu di tànqamlu mais ñoo gën a xam li xew fii Sénégal ñëpp a xam li xew waaw ñëpp xam nañ ne état bi fi nekk nii baaxul ñun ñëpp xam nañ ko xam nañ na état bi fi nekk moo gën a bon ci état yi fi mos a jaar fii ñoo ñëpp xam nañ ko wër na yàlla ki gën a not diine ki gën a not diine Macky moo gën a not diine fii biir Sénégal parce que Macky Sall rek moo fi ñëw tëj fi imaam jël imaam yi nga xam ne ñoo gën ci imaam yi Macky Sall jël leen tëj leen ci kaso gi jël ay imaam di leen jox deux millions ñu naan soos soosaat te imaam yooyu ñoo mérito woon kaso. imaam yooyu di sos soosaat noonu ñoo mérité woon dem ci jeel bi parce que ay imaamu sàcc lañ ay imaamu lekkatu riba lañ jël imaam ndaw tëj ko ci kaso gi jël booy étudiant bi tëj ko ci kaso gi ngir ngir France Ousseynou Diop booy étudiant bi mu jël ko tëj ko ci kaso gi jël imaam ndaw tëj ko ci kaso gi waaw te gis nga imaam yi ñuy tëj ci kaso gi lu garaaw laa lay wax nii yow Sénégalais bi pour nga bàyyi ci xel. non Macky Sall Macky baaxul ci Sénégal man dama déglu benn waxtaanu imaam Ndaw mais dama jooy dama jooy barke rasulullaay ma ne noo man Macky Sall mënu xam ban xeetu doom aadama la Imam Ndaw nee na suñuy bañ leen yóbboo ci kaso gi bañ leen di dugal ci biir kaso gi Imam Ndaw nee na dañ leen di futti bañ set ñoom imaam yi mu ne futti nañ ko garde bi garde na ko futti sa tubéy bu ndaw bi Imam Ndaw mu ne mu xool ko ci bët da ko xalaatuma ko jaral na ma sama bakkan bi yow imaginel imam ak lu mu représente ci diine imam muy symbole l'islam imam moo gën a fort sax président imaam bi nga ne ko simmil pour def sa awra yi génn non non dafa ñaaw ci kanam ay doomam ci kanam ay sëtam nga bëgg a futti imam bi imam ndaw moo ko nettali ma déglu ko lu gën a ñaaw loolu ci àdduna est-ce que am na ba pare ma def ci benn question ñu ne ma pourtant politique sain su duggee foofu kenn du ko futti ñu ne politicien kenn du ko futti xalifa Sall dugg na fa kenn futtiwu ko Barthélémy Dias dugg na fa kenn futtiwu ko Karim Wade dugg na fa kenn futtiwu ko waaye imam bu foo dugg dañ lay futti ba nga set kiy def loolu est-ce que xam na luy imaam est-ce que xam na imam lan lay présenté ci société est-ce que xam na imaam imaam mooy lan d'abord waaw comme yow sénégalais bi yaa nangu ñi jël sa diine traité ko nu mu leen neexee ñoom jël liñ gëm muy faramason ak góor jigéen jël ko teg ko sa kaw yëkkati ko ba mu neex di ko imposer ci télé yeeg rajo yi di ko jouer ay film di ko xoy say doom di jël say imam di leen traité ay terroriste di jël say imam di leen traité ay ay ay sàcc ay lu ne yow nga ne tekk di dooleel ñooñu di def loolu lu mu naqadi la ba ci kanamu yàlla ñu jël ay imam di leen tëj kaso di leen futti bañ set lu ma naqadi la lu ma métti lu la waaw te wallaahi sénégalais yi suñ jugut jëlee fi Macky Sall billaahi wallaahi talaa yàlla dana wàccee ak meram parce que yàlla dafa yor gaayam yoo xam ne dafa leen protéger te ñu ngi tooñ gaayu yàlla yi chaque jour fii biir Sénégal nitu yàlla yi dañ leen di tooñ nitu yàlla yi dañ leen di taqal nitu yàlla yi dañ leen di tuumaal fii ci biir Sénégal billaay wallaay tallaay sénégalais yi kii tooñ nitu yàlla yi kii takkal nitu yàlla yi am ay sénégalais yu daw di coalition ak ñooñu di dooleel fan la réew mi jëm fan la askan wi jëm fan la Sénégal jëm tëgg ak fecc ak mooy yàlla war fee nekk ak njàmbaar te tëgg ak fecc ak mooy yàlla nekkoon na loo xam ne mag ñi dañ cee xeex pour mu jeex parce que mooy yàlla baaxul ci askan mooy yàlla baaxul ci am réew mooy yàlla nekk na loo xam ne day naxasal askan day màbbal jëfu askan yi day mbugal ak askan yàlla dootul wàcce yërmande ci askan woowu noonu te te leen ko sa Sénégal mooy yàlla moo fi ëpp mooy yàlla moo nekk loo xam ne tey Sénégal dafa daj jeunes yëpp dañuy mooy yàlla waaw borom jabar yi borom jëkkër yi lu nekk xeetu mooy yàlla gu nekk am na biir senegal jamono jii nii mu nekk loo xam ne dañ ko ci dooleel dañ koy dooleel waaw ba ñuy jël protect Youssou Ndour jël protect di ko publicité di wax ne askan wi war ngeen a mooy yàlla waaye dee leen jël lii di ko sol pour ngeen i mën a mooy yàlla ñépp na tekk mais ne diine lislaam amul ndey amul baay waaw dangeen waxante dëgg bàyyi ñun mënuñoo nekk ay nit ñu gëm yàlla ba pare xam nga war a nekk ay naafiq loolu du yoon yàlla dañ koy gëm jox ko suñu bopp mu jeex takk te amul luñ ciy sikki sàkka li yàlla wax waruñ cee sikki sàkka dara yàlla daf ne ah jaam ñi wàcceel naa leen alxuraan topp leen ci ngeen mucc su ngeen ci topp mënul leen fexe ba mucc ñu ne fi ñukk alxuraan. jël doxalinu formation yi teg ko ci suñu état bi nguur gi di ko doxal waaw Macky sàll tey su demee seeti ab sëriñ du ngeen mës a dégg ab sëriñ taxaw wax Macky Sall na ko noo def ak diine ji noo def ak daara yi mbaa yaa ngi leen di jàppale doo dégg mukk benn sëriñ bu ko wax Macky sàll amut doo dégg benn sëriñ bu Macky Sall seet si mu imposé ko na ko damaa bëgg tant de daala alxuraan ci béréb sàngam wala béréb sàngam wala béréb sàngam diñ ko wax mukk Macky lu loolu di ko tagg naan ko yaa balancé lii yëg yaa peinture suñuy lii yëg yaa defar suñu lii loolu rek la ñuy wax Macky Sall nañ leen ragal yàlla nañ leen ragal yàlla nañ leen ragal yàlla waaye sant yàlla bu baax comme mag ñu baax ñi bind nañ ay xasida bàyyi fii dañuy sant yàlla ci loolu man gëm naa ne su mag ñu baax ñu bind bindutoon ay xasida bàyyi fi seen woote yi sëy na bu yàgg waaw waaye ñoom seen bët li mu laan gis ñun suñuy bët duñ ko gis parce que moo taxoon ñoom ñu bind ay xasida bàyyi fi pour su nit ñi demee ba jaaxle jàpp leen ci xasida yi góor yàlla yi waaw Baye Niass bind na ay xasida bàyyi fi sëriñ tubaab bind na ay xasida bàyyi fi Maam Maodo bind na ay xasida bàyyi fi su ngeen demee ba gars bëgg jàpp leen ci xasida yooyu ngeen xam lan la góor yàlla yi woote ak fan la góor yàlla yi tegoon seen tànk ngeen teg fa seen tànk continuer tey wéy bu leen kenn jëriñoo bu leen kenn jëriñoo waaw parce que yàlla rek moo fi nekk nañ leen ko wóolu rek am confiance ci moom waaw te dund dëgg naqarlu lu nekkul dëgg ci réew mi waaw gars yi maa ngi guddal nag maa ngi sant yàlla di ñaanal ñëpp. di wax ne xam nga su fekkee wax ji tàng na am na débordé tamit maa ngi jéggalu waaw parce que da ngay wax ba mu yàgg dangay am yëg parce que yëg gi ngay am dara du ko waral lu dul jafe-jafe yi ngay gis sa réew ak naqar yeeg tës yi parce que ñu bon ñi dañ leen bëgg a jël daf leen ñu baax ñu baax ñi ñu bëgg leen jël daf leen ay nit yu bon te loolu warul mën a nekk waaw loolu warul mën a nekk waaw parce que fii nii Sénégal gii sénégalais yi ñoo gorewul rek. sénégalais ñoo gorewul waaye suñ gore woon danañ xam ne mag ñu baax ñi liñ fi liggéey seytaane liggéeyu ko fi waaye seytaane lañ gën a jël jox ko doole ji jël mag ñu baax ñi lañ liggéey ñi falsifié ko def ko combat di ko xeexante suñu biir te mag ñu baax ñi saytaane lañ doon xeexal ñoo saytaane ñoo loon xeex bañ daan saytaane tey jii nii ah ñu falsifié woote góor yàlla yi di ci farfarloo ku ci nekk di ràcc di jëmale sa côté falsifié ko bëri ay njabarkat te góor yàlla yi woote wuñ fi njabar waaw koo ci gis mu ngi taxaw di rëy làmmiñ naan maay borom jaaro yi ñi naan maay borom lii ak borom lii borom nombo yi borom se lii borom sunguf yi yëpp ay sóob la amul benn góor yàlla boo xam ne woote na fi loolu loolu yëpp ay njabar la comprendre kun njabar ak diine bokkul nañ leen waxante dëgg te yàlla tax maa ngi nuyu ñëpp di leen ziyaare leen wàcc seen wàcc waaye bëgg ngeen partage vidéo yi bu baax sama gars